ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي الموت وجاد كل بحمل وسكون fal daal سلطانك ألوى إذا ما السنون عزت بنا بها فللت لها غربا فزال وبالها وإن مشكلات أعجزت كل عالم كسبت لها سرا فلا أهلالها وإن كسر البلبال بالا لحية كما الغلاب أنك بالبال ak sëñ Abdoulaye Diouf seeni seeni rakk moom mi mooy jëwriñ ca kër sëñ Moudou Fatou Diouf ñoo ko tànn adde yi ñu dajale woon teg ko ci loxoom mu ànd ak ñun ñii ñu di ko andi kàddu yooyu yañ ko dénk nag moom mi moo ko war moo ngi nii moom lay wax Mbàkke barkalla waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bi noo nuyu bu baax di la sant bu baax. di la sant bu baax. di la ñaanal bu baax. di la ñaanal ko bu baax. nga dalal xelam taalibi yëpp. mu dalal xelam taalibi yëpp. bokk yëpp. dafa am lool nag. danoo judd fekk ko fi. mu ne dañoo judd bàyyi ko ko sëñ Aliou Diouf Lambaye. ju daa jëm si kër Serigne Touba. jëm si daa ko defal boppam. mu jamono ay taawam di ko def. ba dégg ay caatam des fi. léegi ay ak sët di ko dox ànd nekk ca bopp kër ga mooy sëriñ Thierno Faly Diouf ak sëriñ Assane Rakam ak sëriñ Assane Rakam ñooñu sëriñ Aliou leen jur mu ne ca sët sëriñ Abdoulaye Diouf ak ñun yi ak sunuy rak ak sëriñ Ahmad Diouf mii ak i rakam ak sëriñ Dame di jëwriñ ca kër ga ca kër ga ak Bassirou mii di jëwriñ ca kër sëriñ Assane mu ne ak Bassirou mii dikk gi nag ndaw rek lanu lu nu yónni du nu du nu sëriñ bi nee na liggéey kër sëñ Aliou boobee moom la moom moom la yéene ji nag moo ëpp jëf ji ndax fii làmb la rek lu waay bari bari doole boo fi dikkee ñu daan la waaye loo néew néew doole boo dikkee gis koo daan kon addi yi néew na toll na ci fukki million ak juróom-benn. ak juróom-ñett fukki junni ak xeeb ko lool ak ñaan nga yàgg fi lool te ñaanal taalibe lépp lu waay defut ci yow da koo amul mënu ko waaye dem nañu ba nun murit ji bu ñu yaafusee la ci sunuy loxo ndax yéene ji nu am réew mépp a am jullit yëpp a am bokk yëpp a am noo ngi lay gërëm bu baax di la sant di la ñaanal sa borom àggale say ak sa yéene Sëriñ Tuubaa yàlla na ko ko ndam li nga am ci biir réew mi ak bitim réew yàlla na yàgg lool tey sa njiglaay ànd ak wér ànd ak yokku ànd ak yàgg fi bi jaahi nabi Mustafa barke Serigne Touba noo ngi lay gërëm baax di la sant noo ngi lay gërëm baax di la sant jërëjëf Diouf sëriñ bi ngërëm li sëriñ Touba am ci sëriñ Touba ngërëm li sëriñ Touba am ci sallallahu alayhi yàlla na nga ko am sëriñ Touba ngërëm li sallallahu alayhi wa sallam am sëriñ Touba yàlla na nga ko am na nga yàgg yàlla wér yàlla na nga yàgg yàlla na nga wér ña la jiitu lu ñu naanal te matut yàlla na nga ko mottali ak la nga naanal sa bopp am naa bi boo xam ne bi waa Afrique du Sud ñoo ma ko waxoon ne ma buñ gisantee naa leen ne ñu ngi lay jotli ab nuyoo ak siyaare di sàkku ay ñaan di la xam ne bëgg nañuy màggal bëgg nañuy siyaare si bëgg nañuy addiya di indi ay addiya te am nañu jafe-jafe kayit nee na dugg sab nopp bu duggee sab nopp rek. lañ ca bëgg daañu ko am jërëjëf jërëjëf jërëjëf. sëriñ bi nee na alhamdulilah rabbil alamin mu ne ñi nga gën a dolli santaat bu baax mu ne di dollee gërëm bu baax mu ne kàddu yi mu ne sori na ci moom lool mu ne xolam sedd na ci mu ne xel mi dal na ci. mu ne yaakaaram it dolliku na ci mu ne soññ bu rëy la ci moom mu ne gannaaw cant ak mu ne nangeen ko gën a siyaare kilifa ya mu ne te ngeen gën nga leen ko santal mu ne gën leen ko gërëmal mu ne fa tabaarakallaahu mu ne liggéey bi rek moo fi ne mu ne xam ne li ngeen ci ëmb muy pëste bu rëy bi ak yitte ju rëy ji ak yéene ju ji mu ne xam nañ ne loolu rek moo lool addiya ji mu ne kon addiya ji mënta xeebu mukk ci moom mu ne bu ko yéesoon gën koo yées gën koo yéesit muy lu rëy ci moom xolam sedd na bu baax mu ne mi ngi leen di defeetal bu baax a baax mu ne mi ngi leen dala dalal am xel bu baax mu di leen gën a seereel ne. mi ngi gën a yeesal jaayanteem ak sëriñ bi fas yéene gën a feddal ay mu ne fas yéene ko gën a ànd ak yéen mu ne loolu rek moo fi ne jërë ngeen jëf mu ne mi ngi ñaan bu baax nag mu yàlla mi sàmme sàmm leen bu baax mu sàmm njaboot gi te wéeral leen leen ba ngeen gën a mën a nekk ci liggéey bi ba ngeen mën a gën a àggale seenu liggéey mu ne noonu rek mooy ñaan gi. jërë ngeen jëf waa kër sëñ Aliou Diouf Lambaye yëpp taal seen loxo أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا